asalaamaaleykum uh, man la Ahmed uh, bu TapTap Send donc ma ñëwaat ci vidéo yi rek pour expliquer étape par étape naka ngay ajouter TapTap Send ci sa paiement en ligne bu fekkee da nga nekk Banco Posta wala post Postpay maanaam nga def de sorte que lépp loo fay ci internet bi uh, wala ci application bi mu mën a jàll sans problème. donc fi ngay tàmbalee mooy nga téléchargé application Banco Posta wala post Postepay moo xam ban nga ci yittewoo nga trans nga téléchargé ko donc bu ko defee nga ubbi application bi nga connecté wu euh, connexion bi nag am na ñaari façon am na ñoo xamante ne mën nañu utiliser reconnaissance faciale bi bu fekkente ni moom lañ ci registré mais am na ñoo xamante ni mën nañu utiliser li ñuy woowee codice post ID ngeen jégal ma nag sama italien tax koo leer trop donc euh, xam naa ni yenn moo italien yi may wax yi du a mais xam naa ni di ngeen ko comprendre incha allah. donc boo duggee ci application bi bu fekkente ni da nga nekk Posta am na fu ñu bind. Euh, konti e carte foofu ngay laal bu fekkente ne nag post pay nga nekk da ngay njëkk bës fi ñu bind prodotti ba pare nga bës fi ñu bind impostazioni carta bu ko defee léegi nga daal dem fi ñu bind abilita Acquisity Online habilité Acquisity Online boobu ngay laal nga fexe mu actif bu fekkente ne ak nekkul woon actif mu nga laal ko mu actif bouton bi bleu ndax moom moo lay mën a permettre ngay mën a def ay jënd ci internet bi ngay mën a fay ci internet bi. bu ko defee nga daal di sélectionné li ñuy tuddee catégorie mooy sélectionné catégorie bi boo ko laalee rek nga gis mu indi la option bi fi ñu bind transferimento fondi nga vérifier ndax foofu actif na bu fekkee actiful nga laal ko mu daal di actif dafa war a am euh, dafa war a am tik bu weex boobu moom mooy transferimento fondi bi boobu ngay activé jeex na bu fekkee activé nga foofu rek léegi mën nga utiliser sa carte bi nga ajouté ko ci application TapTap Send bi comme méthode de paiement boo ko enregistré ci TapTap Send bi comme méthode de paiement rek mën nga def say transfert ak carte bi sans problème jërë